alors Sidi sa deux derniers singles yi. Mm-hmm. cak cak. waaw ak Sidi da ko yëngal. mbaa xamul nga ne mbaa xam nga ne instant bi moo moo moo poñe dëkk bi. ah moo poñe dëkk bi. Ah te poñe bi mu ko poñe est-ce que yow yëgoon nga ni dina ko poñe. bi ngay waajal bi ngay waajal single yi. waaw xamoon nga ni it bi mu def dina ko def amoon nga ci njort. am naa ci njort amoon naa ci njortu amoon naa ci njort bu baax a baax a baax parce que sénégalais yi bëgg nañu ma njort boobu rek laa ci am jàmm laa nag damay génne rek yaakaar rek laa am yàlla mooy dogal waaye dafa am benn affaire bu am mooy man damaa ñëw sénégalais yi bëgg ma eh, lu ma génnee ñu jël consommé bu jaree defaraat ñu ne ma defaraatal waaye lu ma génnee dañ ma naan neex na. dañ koy accepté dañ koy sinap partager ko sénégalais yi ñoo ma bëgg moo tax lu ma génnee rek damay am yaakaar bu baax dinañ ko jël moo tax liggéey képp moo maar su may dugg si joo nag du ma dugg nii pour way de parce que xam naa ne ñii di ma déglu dañu maa bëgg lépp lu ma leen war a jox daa war a nekk lu set lu civilisé lu neex lu neex a déglu parce que léegi sénégalais kenn mënu leen nax ci musique lu baaxut te neexut kenn du ko déglu bu baaxee te neex rek ñu consommé waaw moo tax bi muy génn am naa ci yaakaar que ni dina satisfaire sumay fans mais aussi euh, du man lépp sénégalais yi la parce que man way mu génn joo ñu tas ko rek lañ ci am mais ñi nga xam ni ñoom ñooy jël gën ko tas dugal ko seen Instagram seen TikTok Snap euh, fépp soppe yi la fans yi la am na ñoo xam ne dañ lay defal promotion te xamoo leen chaque jour yaa ngi ci seen Snap chaque jour yow la ñuy dugal TikTok chaque jour yaa ngi seen statut te billaay leen am xam ne dañu lay ñaanal képp te xamoo leen am ñoo xam ne dañuy julli di la ñaanal te xamoo leen kon tey jii ñooñu loo góorgóorlu doyut loo yokk doyut loo way mu gën a neex doyut te maa ngi profité di leen jaajëfal ak Sidi Family bi nga xam ne tey jii léegi la ñu génne benn clip boo xam ne dañ ma ci rendre hommage jëlaat suma morceau yëngal bi defaraat ko clip delloo ma ci njukkal te te man maa leen war a delloo njëkkal Sidi Family International ñi nekk fii di fépp fu fépp fu Sidi Family nekk rek jóge nga fa ñëw pour bokk ci clip bi ah, boo duggee léegi ci YouTube bi xam naa dinaa la envoyé lien bi nga nga seetaan ko ñu def benn clip boo xam ne dañ ma ko defal surprise tey mais sama xol bi sedd ci trop waaye ndax man maa leen war delloo njukkal ñoom ñu defar clip delloo ma njukkal ndax bégal bi ma leen di bégal waaye nañu xam ni ce n'est que début du commencement maa ngi wàcc yeneen yoo xam ne bu génnaatee aha du xool jaabira du xool yëngal du xool càq-càq mm-hmm. maalax yaa ngi waaj yeneen yoo xam ne bu génnaatee. Mm-hmm. du xool yooyu yëpp ah a neex te dañoo foor ci weewu béykat yi. Mm-hmm. da nga am quatre tracks yoo xam ne ay afrobeat <laughs> naa di ngeen ne fu ko jëlee. xanaa yow da ngaa yor ay. jinn en tout cas moo noonu. <laughs> ah boobu yéen <laughs> en tout cas moo ngi noonu de bu fekkee ne kenn ci yéen woo naa ko rek pour laaj ndax sa waay dafa day préparer quatre quatre tracks yoo xam ne ay afrobeat la nga wax. du kenn c'est que dañ laa topp ni la sénégalais yi toppee eh, laa la toppee rek. ah na bu fekkee am na rek wax ñu. waaw pour de vrai am na nag. waaw maa ngi defar ay morceaux yoo xam ne ay morceaux international la muy ay morceaux afrobeat yoo xam ne euh, waaye beneen niveau la. lan moo tax nga taamoo def afrobeat. waaw euh, parfois day baax nga def xam nga musique recherche la. Euh, musique xam-xam la te xam-xam nee nañ fu mu nekk bu jaree dox ba foofu dem jëli ko demal jëli ko ay ndaw lañu di doog a commencé suñu borom may ñu àdduna bëgguñu sénégalais bëgguñu li ñu war mooy li ma wax léegi rek dem uti lépp lu ñu mën a def pour mu neex suñu fans yi rek dañ koy def ba pare tamit am na yenn xeetu morceau yoo xam ne day baax au niveau international ñi ngi ci parce que sénégalais dañuy paral dañuy faral di ma poser question boobu Sidy ba xam yaa ngi waaj ay morceau yoo xam ne c'est un peu international pour boo demee ci festival ak yeneen monde yeneen yeneen dëkk dinañ mën même bu ñu déggul li ngay wax dinañ dinañ mën a dinañ mën a fecc fecc son bi ci la ñu nekk di liggéey te liggéey nañ ci morceau yoo xam ne incha allah ah bu génnee sénégalais am naa yaakaar dinañ kontaan ñi ngi en ce moment ñi ngi ñi ngi nekk ci tournage yu clip bi te incha allah bientôt dinañ jot euh, clip bi dinañ gis beneen Sidy Diop ci beneen facette rien que pour ñu bëgg pour ñu bëgg rek waaw. damay damay appuyer tuuti ci li nga wax. Mhm. concernant international. Mhm. même danga ne même bu fekkee ne ñoom dégguñu li ngay wax. man dama jàpp ne jarul sax ñu dégg li nga wax. ndax gis nañu waykat bu fi dem Bercy. taxaw naan. bu àndul ak moroom yi mbéyam. te pourtant tubaab déggul tubaab déggul mu leen di neex. waaw mais ñun ñi sax dañuy toog di déglu morceau tubaab bi peut doo xam li ñu wax te yaa ngi koy fecc. bu baax a baax originalité ak tamit peut-être euh, morceau bi fi muy daw musicalité bi c'est important parce que am na musique moo xam ne foo ko tegee ku ko déglu dina yëngatu même bu xamut li ngay wax dina yëngatu te pour dire vrai bon mbalax mi c'est un national. mais malgré nag mi ngi génn mi ngi génn bu baax a baax parce que suñ ñoom papa Youssou Ndour Omar Pène Ismaïla Lo baaba Maal ñoom papa Diouf euh, euh, Wally ñoom am nañ aussi fu ñu ko yóbbu euh, nañ ko wax am nañ ba ñu ñëwee am nañ fu ñu yóbbu musique bi feneen mais ñun génération aussi bu bees bi dañ ko war a jël gën ko yóbbu feneen foo xam ne peut-être suñu grand yi sax wuñ ko foon suñu mag yi yóbbu yóbbuwuñ ko foon suñu papa yi wuñ ko foon loolu xam naa ni ñoom sax bu ñu toogee di ko seetaan wala ñu gis ko contentement bu baax lay def lay waaw parce que tey kenn ku nekk boo sañoon man Sidy su ma ñëwee am musique Sénégal fu ko yóbbu su sañoon beneen génération bi ñëw ci sama ñëw fekk foofa yóbbu ko feneen parce que drapeau musique Sénégal la ñuy la ñuy la ñuy évoluer en fait. alors qu'est-ce qu'on attend de Sidy après le confinement. Euh, après le confinement war nañ def euh, tournée nationale. waaw projet yi war nañ def tournée nationale ànd ceeg Subatel label bi euh, Euh, DG bi euh, Souley Awalaay ma koy nuyuwaale Matar Diop suba teel suñu suñu xarit suñu mag suñu kilifa di nuyu aussi Géeki Mbisaan fay le manager Baye Niass El Capo le grand snapper ah ñoom ñoom ñoom ñoom Bastion Ibro ah Sibéru Babs VIP Mara ah ñi ngi nuyu ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ah Badara Gajaga suñu xarit suñu mag ah, ah Abdou Karim Mitsi Mota Diop sama frère yooyu maa ngi leen nuyu maa ngi nuyu ñëpp. ñëpp ñëpp ñi nga xam ne xam ñu ngi ci ci ci alentouru euh, suba teel rek bu ma limee damay juum maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp bu baax a baax a baax bu ñu paree war nañ def tournée nationale ànd ak suba mais aussi war nañ def tournée internationale ànd ak suba waaye di waaj aussi album. waaw. tournée nationale bi ci laay wax. waaw Dakar Feeling. Mhm. maa bëgg lépp loo xamante ne ni image la. ñun ñu nekk ñi nga xamante ne nii ñun tamit dañuy am ci image brute yi fépp foo teg tànk ci tournée nationale bi rek ñu teg fa tànk xam la moo tax parce euh, que Bamba. waaw moom suma mag la. Mm. suma xarit la. Mm. di suma kilifa di suma conseiller. Mm-hmm. te Bamba ku ko xam-xam ko matal bi suma télé. ay xarit kër ay doomu nag suma Feeling Dakar moom. amul lenn lu muy soxla ci Sidy Diop muy mm-hmm. muy nekk loo xam ne da nga naan suma xamoon. Mm-hmm. yow la ñuy ñaan yàlla suñu borom yóbbu ñu ci ak jàmm. ñu déggoo ci jàmm àndandoo ci jàmm. ñibbisi ak ci jàmm. incha allah lépp rek Sénégal la. dëggantaan alors Sidy gis nañ banlieue bi ni mu la bëggee. relation ak ñoom lan la. waa question bu ma sawar a tontu la waaye question yi lu muy bari bari bi bokk na ci bu ma ci gën a neex parce que man banlieue laa xam banlieue laa am bi ma bi ma bi ma jugee Tivaouane euh, ñëw bi fii ñoom ñoo ma uuf ñoom ñoo ma uuf euh, ma lépp banlieue la. fii laa wooyee ci simb yi mariage yi ba beneen koñ bu ma gis ba engagé ma fay ma xaalis rek ci banlieue bi nga ma gisee ñu bëgg ma loolu ba pare am benn bëtu yërmande envers moi euh, euh, lu baax lu nekk yéene nañu ma ko lu rafet lu nekk yéene nañ ma ko euh, fépp fu artiste bu mag di taxaw ci àdduna rek yéene nañ ma ko ba pare ma leen di sagoo ñoom it ñu may sagoo xam nga bëgg goo gis yéeg moo koy fay dañ maa yëg dama leen a bëgg ñoom ñu yéeg ma yéeg mënul weesu chaque di ngay joué ñu bàyyi seen nelaw yëpp ñëw ñëw ñëwal la concert ñu taxaw ba mu fees dell supporter la yëngal fecc ba mu neex ñu dem foo woote ñu ñëw looy jaay ñu jënd grand théâtre ñu jënd billets yi deux semaines avant def ay kaar ñëw kon banlieue maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di siyaare maa ngi leen di sant ba pare di yëkkatiwaat suma jëmm ji di ko dénkaat banlieue suma mag yi nga xam ne ñoo ne ci banlieue bi ñoom Xaadim Guèye ñoom Ngañ Demba Pape Mama ah ñoom Maf Boga ah, ah, euh, comment dirais per Mbaw ah, su ma mag yi nekk ci banlieue bi yëpp suma limee jum Omar maa ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax a baax a baax di leen jaajëfal te boo ne banlieue nag ne géejawaay mhm. sama fief bii laa koy dooree boo ne banlieue ne Pikine mhm. ne parcelle un ba vingt 26 Grand Yoff Thiaroye mhm. Yëmbal Kër Massar xam nga fépp maa ngi leen di nuyu di yëkkatiwaat suma jëmm ji encore une fois di leen ko dénkaat di leen xamal ni sii di xale la buy doog a débuté nekk ci yoon bu ñàkk ñu def erreur waaye bu fekkee ñi ngi def ay erreur tamit ñi ngi koy jéggalu nit ñi te xam du suñu coobare peut-être xale ak erreur moo ànd bu ñu ko defee ñu ngi koy jéggalu nit ñi di leen dénkaat suñu bopp tax di leen xamal ni nu ñu mel rek li ndongoloo doon wax suñu mag ji yal na yàlla xaare ko àjjana doole jën ci biir ndox la jën bu génnee ci ndox mi rek faatu waaye ñun tamit suñu doole public bi la ndax fu ñu mënti dem rek public bi la loo mënti woote su euh, soutien wu public bi nga ciy xaar loo way lu mu neex neex bu public bi taxawul dooleel la du neex foo dem lu mu neex neex neex bu public bi génnul doole la du neex kon lépp ñoom la man maa ngi leen koy delloowaat te waxuma man ci sama tur mais képp kuy artiste di yor micro rek di woy maa ngi maa ngi jël ci micro bi di la waxaaleel ñun ñëpp suñu doole public bi la artiste bu nekk bu wootee na public na nañu na nañuy na nañuy ñëw di ñu dooleel ndax ñoom ñoo tax ñuy woy lépp ñoom la maa ngi leen koy delloowaat suñu borom defal leen jàmm may leen gudd fan ak wér yaa yes alors Sidi euh, Forbe gis nañ fa tamit ay images yoo xam ne nii am nga kook ñoom. Mm-hmm. ñu bëggoon a xam foofu lan nga fa lan nga seex ak ñoom euh, relation boobu noonu genre da nga am ak ñoom contrat publicité ngay def ak ñoom wala. waaw ah, Forbe dafa am euh, benn jour ma tëdd ñu woo ma ñu woo ma ma ma dem fa vraiment. mooy mooy fi nga xam ne moom la ñu kaso yi nga xam ne moom la ñu denc xale yu ndaw yi vraiment ne ma tey dañuy def fête Euh, mais mu nekk tamit lu ma marqué ci suma carrière jour bi ma fa demee jour boobu suma yaram dafa daw ma ñëw fekk xale yi nga xam ne peut-être erreur moo leen dal ba ñu dugal leen fa mais du seen du seenug mbonte euh, mais demuñu fa pour pour xoqatal leen dañ leen fa yóbbu rek pour jubanti leen mais bi ma fa demee ñu war a def feet ñu ne leen ban woykat ngeen bëgg ñu indil leen mais ñëpp ne di Diop ba tey man ak seen kilifa yi dañuy message messageante dañuy déggante te dem bi ma fa dem tamit rëccuwuma ko ma ñëw vraiment ñu kontaan ñu génnee leen ñoom ñëpp ñu toog waxtaan ak man saaxonte ak man ma pelay bak jaabira morso yi woy sànni leen discours xamal leen ni ba tey ñi ngi ci population bi parce que erreur la ñu def rek peut-être xeex ak sa morom am loo jëflanteeg moom ba mu gaaño wala dara wala def lu la sa waajur santul wala erreur la mënoon na ma daal man waaye kon nag Euh, ma sàndi leen benn discours xamal leen ni fii nekku fi parce que waratoo leen génn déedéet da ngeen fi nekk parce que dañ leen a war a corriger rek mais ba tey ci population bi ngeen bokk bu ngeen génnee war ngeen mën a liggéey war ngeen mën a ubbi seen place comme ñëpp war ngeen a mën a dawal ci oto yu rafet yi war ngeen a mën a tabax ci kër yu baax yi war ngeen a mën a dem fu nekk ci àdduna war ngeen a mën a liggéey pour tuubal seen waajur yi teral leen ci àdduna ba ñu siggi parce que seen waajur yéen rek la ñu am vraiment mu nekk bis bu ma neex ci sama carrière parce que woykat yi bari nañu euh, mais xale yooyu bu buñ ne Sidi Diop te nekk foofu noonu ne Sidi Diop lañ bëgg ngeen indil ma ñu ñëw ñu def ma seen ambassadeur mm-hmm. ne dañoo bëgg bis ni ki tey lépp lu ñu xew la nga ñëw euh, lépp heure bu ngeen buñ la soxlaa rek gis la suñu wet loolu ça fait plaisir mm-hmm. man tamit ma ne leen heure bu ngeen ma soxlaa mm-hmm. mu fekk ma fii Sénégal nekkuma tourné wala envoyé incha allah lépp lu ngeen ma soxla dinaa bàyyi suma yi te ñëw dooleel leen te du ci ànd man kese damay jéem a fexe la bu ñu amaatee feet moo woo sama mbokk artistes yi pourquoi pas ma woo Papa Diouf woo Wally woo woo woo Tarba Mbaye El Hadj Keita Momo Dieng Thiat Seck euh, Pama euh, Mandiaye ñi nekk ci woykat yi nekk ci Bambali woykat yi nekk ci senegal gépp ñu ñu dajale lu ñu am jënd ko benn affaire dem dimbalee ko xale yooyu nga xam ni ñoo ñoom la caabi féete ginnaaw te ñu nekk forbe may ñaan aussi yàlla nañu yàlla yàlla na leen yàlla defal ba ñu génn delluwaat ci seen parents yi ci barki Serigne yu Mbacke barki màggal gi ñu jëm. waaw waaw ay ca amul xalaat da nga wax li la gënal. waaw. ci bi argent ak amour. amour. pays bi la gënal. Dubaï. plat préféré. lépp Sénégal. wala bu xees. na baax rek. bu wala bu sew. na baax rek. ku baax. waaw waaw ah bon waaw suma idole ci ci ci ci ci musique voilà bon suma idole ci musique Youssou Ndour la waaw parce que Youssou dafa am fu mu yóbbu ci suñu ci dafa jël suñu musique bi am feneen fu ko yóbbu mm-hmm. foo xam ne tey jii nii euh, bon pour dire vrai ñu bari xam nañu mbalax mm-hmm. grâce à yu Ndour am na tax na ñu respecter les musiciens sénégalais waaye ba pare mu nekk mu ibbi ci ay affaires yu bari yoo xam ne tey ji ndaw bu nekk ñaan nga yàlla dem ba def loolu ubbi télé ubbi rajo jël ñeneen ñoo xam ne du ñu ay musiciens teg leen ci ñuy liggéey di daan seen doole di jël di yóbbu seen kër kooku wax dëgg yàlla waxuma sax idole référence la idole la euh, lépp la waaye ban jigéen mooy sa man moom na baax rek na jikko na jikko ja baax rek mu jullite moom laa la xam nga jëmm du sëy na jikko ju baax rek mu jullite waaw waaw gaa yi gaa yi nga wax ñan ñooy ñan ñooy <laughs> ah, man ah man moom na baax no na jikko ju baax rek waaye bàyyi na ngay def nga am ay forme ak ay xol moo xool seen am na yow yow li ma la xamal <laughs> waaw waaw. waaw waaw bëgg la rek bëgg la rek Serigne Saliou Mbacke borom njurul borom jàppandal xabaan borom daaray lagan bëgg la rek euh, xam nga koo xam ne dafa ne rus naa jamonoon teg nit muy dee di dem safara kooku desee tuñu dara ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañu ko yàlla fayal moom Serigne Saliou Mbacke waaw loolu moom yàlla moom ma ko nattoo damaa am bëgg-bëgg ci moom dama ko bëgg rek te yàlla tax waaw loolu moom yàlla moo ko def ci man quoi xaw ma nag lan la waaye dama ko bëgg rek te yàlla tax. xoolal xam nga man tey jëluma décision wooy mais yaa ngi ma koy ñaan ci Serigne Saliou ah yaa ngi ma koy ñaan ci Serigne Saliou bàyyi leen yooyu bàyyi leen journaliste bi bàyyi leen bu ngeen ma seet bu ngeen ma seetee su ma waxtaanee ba pare ngeen bëgg maa woyloo ci Serigne Saliou Mbacké non yow dama lay invité soirée wooy la yow dama lay invité soirée nga ñëw ma teg la ci kaw wooy la incha allah ah mais mais mais kontaan kontaan naa di leen nuyuwaat bu baax a baax a baax vraiment kontaan bu baax a baax di di gërëm aussi suma suma chef d'orchestre bi nga xam ne moom a seet si tey yendu silma muy le grand Ndioufa ah, chéri Aji ah baayu Serigne Fallou ah rakku Omar Diop suma baay maa ngi koy nuyu muy grand bu oyof chaque jour bu xëyee bàyyi itam yëpp ñëw toog nekk suñu kilifa di ñu uuf di xool nu ñu toogee yàlla na yàlla may ko gudd fan bàyyi ko fi. Eh, yàlla sàmm ko ak abu sala jëre suma suma jumeau boobu suma mbéjee fay bee ci wet gi eh, ak tamit groupe bi yëpp maa ngi jël nuyoo bi di ko teg ci loxo njuufa parce que feccum liir nag bu neexee nday jaa jàpp ci ndigg li waaye lu mu neex neex yëngal cag-cag ak affaire yi jaabiraak ñoom seen ñii ñoo ko tëgg yàlla ma yàlla fayal ma leen yàlla gën leen a yokk nag waaye ñu gis seen bopp ci man bu baax a baax a baax a baax a baax a baax kër yi taxaw oto yi taxaw loolu yëpp yàlla naa dem ba mënal leen ko am naa yéene bi mu ngi ci suma xol yàlla ko yàlla mottali ci barke Serigne Saliou suma xarit yi may àndal tamit ñi ma fi limoon ñëpp yàlla may leen gudd fan ak wér te bàyyi mag ñoom subateel teel yàlla dolli fa jàmm képp kuy artiste yor micro nekk Sénégal di woy man Sidi Diop maa ngi lay ñaanal jàmm ci barke Seydina Muhammad yàlla na ñëpp am jàmm. su ma fa jugee damay woy borom jurul borom jàpp ndaal xabaar daaray la gën man de duma tay di la joobe bàyyi daal soxna faati jaxate la ñu woowe sa yaay xaatim rasool la ñu woowe sa baay borom jurul borom jàpp ndal xabaan borom daaray la gan man de bëgg naa la giñ naa ni yaay borom jamono kooku mooy yaakaaru Serigne Cheikh Béthio mi ñuy jooy baayu mi daa di cuut ney ma de bëgg naa la lool Serigne Saliou Serigne Saliou Mbacke daan na wax naan su ngeen ma joxe ndaw ñi tey ma def ci ñoom la sama baay daan def ci mag ña ma nga gane àdduna 1915 ca jaareem waaye ma nga ñibbi àdduna 2007 ndonga yëpp a jooy soo ma wede demal jannatu Serigne Saliou borom njëriñ ñëpp ndalal xabaan dem na ni géej gaa ngi jooy asap maan si jooy ndongo yaa ngi jooy sëriñ Saaliw rakki maam Mor Jaara sëriñu maam Cerno Birahim ndama ca daara mooy baay ja wooy yaakaaru maam Cheikh Ibrahima Fall su ma ne maam Cheikh Ibrahima Fall sama xel day dem ci baay faal ani baay faal ye wooy waay waay waay waay waay waay ñoo ngi ni yoonu murit yoonu yàlla la bula ko jaarale ñëwal bula ko fabal layla layla waaw waaw la ilaha illallah rakki ma fat ma dawr yasin mi ci mbool damel samba yaaya faal damel samba yaaya faal damel samba yaaya faal dëggal loolu <laughs> moom ci waxam bi <laughs> xoolal bisu ndeysaan bul xamante ne nii moom mooy oh. euh, gis ñu defal ndeysaan moom yaakaar naa ni saa su génnee ci ki nga xam ne moom mooy Serigne Saliou rek nii lay demee. waaw Serigne laa koy woyee moom moom xol laa koy woyee àll laa koy woyee ndax damay bëgg suma koy woy mm-hmm. eh, xawma ma lan la daal su ma koy woy xol laa lu ma woy rek mu neex damay bëgg mu gën a neex ngir jëmmam ji defee lu ñu dara defal nañu lépp mm-hmm. yàlla na yàlla waaw suma mot de fin mooy eh, gërëm waa àdduna mm-hmm. gërëm waa Sénégal di ñaan yàlla ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon daaw te nekkatuñu fi yàlla na yàlla xaare leen àjjana ku ci mel ni suñu mbokkum artiste bi fi nekkoon muy Zula fi mu tëdd yàlla na ko yàlla eh, yàlla na ko yàlla na ko yàlla xaare àjjana fi mu tëdd gënal ko fii mu jóge ñi nga xam ne ñoo nekk ci hôpital yi suñu borom yëkkati leen ba ñu dellu seen jaboot ñi nga xam ñoom la caabi féete ginnaaw yàlla na yàlla génn leen bu ñu génnee yàlla ñoom bu ñu bu ñu fa delluwaat ñun ñu fa musul demit it na yàlla bu ñu fa dem yàlla bu ñu fa am benn problème bu ñu fay yóbbu yàlla def jàmm ci àdduna yàlla def jàmm fépp partout dans le monde Mali tamit temps yi xaw naa yëngatu yàlla na fa yàlla dolliwaat jàmm Sénégal confinement bi yàlla def ñu déconfiné ci jàmm mbas mi jóge fii ku ne delluwaat ci sa liggéey ci barki Serigne Saliou Mbacké maa ngi koy ñaan yàlla na ñëpp am jàmm yàlla na ñëpp am jàmm yàlla na ñëpp am jàmm moo ngi noonu Sidy Diop la woon ci li nga xam ne moom mooy euh, l'original bu ngeen seetaanee première émission bi di ngeen xam ni deuxième bi di demee alors deuxième bi Bass Thioung lañ invité di Diop moo ko invité Sidy dañ ko invité mu invité waate foofa toj bu ko defee waaw moo taxit invité nga ko moo tax it invité nga ko <laughs> bu ko defee ñu ngi leen di sant di leen gërëm yéen ñëpp ñi nga xamante ne ni yéen yéen euh, les fidèles internautes de Feeling Dakar man tamit mënu ma def émission ba mu jeex te du ma euh, sant remercier ki xamante ne moom mooy moo ah borom Hermao euh, shop bi nga xamante ne moom moo nekk rue 15 angle Blaise Diagne ah sinon nga ne rue 15 angle 16 moo nekk diggante Blaise Diagne ak euh, li nga xamante ne moom mooy rue 16 moom moo def ci kaw ba ci suuf ah. noonu demee fàttali ma il faut ma suma frère ah. nga xam ni euh, mois bu nekk ak valise yére mois bu nekk ak valise yére bi may jox muy muy muy Nderi Kebe mhm. maa ngi koy nuyu bu baax borom Medina wax dëgg yàlla suma frère day yëkkati yére yu bari di ma yónni naan ma solal dama laa bëgg kon nag yoon la ma tudd ko remercier ko bu baax a baax Mortala Fall borom Sandaga borom dàll yu rafet ci man chéri àjjana maa ngi lay nuyu borom woy wi cak-cak waaye tamit maa ngi nuyu ah suñu grand am di Thiouz maa ngi lay nuyu bu baax a baax ngañ dem ba borom borom wat yu rafet yi maa ngi lay nuyu maa ngi lay siyaare ñooñu moom foo jaar ma siyaare leen ay Aïda Thiam borom Paris suma yaay borom billet aller retour yi ci man ak hôtel yu rafet yi te yaa ngi ci man maa ngi lay souhaiter un très bon anniversaire dundal yàggal wéral ah. maa la ko wax Anta Ale borom xawas bote borom géejawaay mbokkum day sóoraale ak Baye Ndiaye Anta maa ngi lay bëgge bu baax a baax yàlla na ñëpp am jàmm. amiin Sidi da ngaa tàggatoo woon ñooñu il faut ma remercier xam nga la moo tax parce que bëgg goo gi fii nga koy fay. Hmm. xam ne da lay woo di la defal teraanga yére fu mu rafetee mu yónnee la dàll fu mu rafetee parfum montre hmm. rafet na nga toog rek tudd turam ndeyam sax defuñu ko pour ma tudd leen hmm. waaye damaa xam ne rafet na rek moo tax ma def ko yàlla na leen yàlla defal jàmm jaajëf. ayca moo borom Herman shop moom moo def nii ci kaw ba ci suuf nekk rue 15 angle Blaise si nga ko nii rue 15 angle diggante Blaise Diagne ak rue 16 foofu la nekk boo demee lépp luy yére lépp luy dàll lépp luy tubay mu ngi fa gis nga chemise yi moom moo koy def alors numéro téléphone am 77 630 52 57 bu ngeen ko woowee ci numéro lépp loo xamante ne nii bëgg ngeen ko ci habillement dina leen ko defal ñu ngi remercier toute l'équipe de Feeling Dakar di leen jox rendez-vous beneen yoon jaajëf.